bismillahi rahmaani rahiim rabbi bima yasrahul ashaana xaat fajaha bijaahi afdali man lillahi xaat lajaha salaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi bu ngeen déggee loolu xam ni ah jàmbaari sëriñ Bamba ji na ko mooy kan sëriñ Gana Messere Maxtaar borom sëñ bay sëñ bi ku dajul Bàmba dajoo lu ma wooteeti bisub sant bisub delloo njukkal sëriñ Tubaa bis bi nga xam ne si ni at bu jot mu di ko woote fii ci këram gii ren nag mu tombeek la 14 février di bis boo xam ne si sëñ Messere Maxtaar at mu jot mu ci delloo njukkal nag jàmbaar yi sëriñ Touba yi waaye nag yaakaar naa bis bi kuñ ko tudde sëriñ Maay Bay Géy jàmbaar yi sëriñ Touba bis bi kun ko tuddee Serigne Aliou Touré borom baarikalla Mbàkke joxal ndaw ñi mag ñu regg ñan waaye nag dara jaale ko sëwru fay ku ne xam na ko ci ginnaaw Serigne Khadim Gueye. Serigne Gana Messere nag buñ ko tuddee xel yëpp dafay delluwaat Daaru Muxti ñuy ñaanal Serigne Abbas Mbàkke xalifa borom daaru suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ak buntam ci borom daaru buntam ci Serigne Touba Serigne Modou Makhtar Mbàkke moom Serigne Cheikh Awa Balla bis bi nag waajal giñ koy waajal moo waral njabootu Serigne Touba gi nekk nii toog. ni mu ko waxee sëriñ baara moo dalal gan ñi moom sëriñ Cheikh Baara Khourédia ndax pénc mi ñu nekk pencam la waaye ku ne xam na diggante sëriñ Gana Messere ak sëriñ Bassirou Thioro moom sëriñ baara mu ngi nii toog mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu bu baax ci turu kilifa jotaay bi te sëriñ Bassirou Mbacké ko ñaanal bu baax taxawaayam doole yàgg li mu yéene ci kër Cheikh Mamadou Amine yéene ko ci buntu kër Cheikhul Khadim yëpp yàlla na ko ci yàlla may kattan mu def ci lu ak yaakaar sama ñaan gi ñaanu xol la ndax xam naa tey ku xat la ku ne ci yitte yu bare la waaye ñàkk xam nu muy def sëñ Gana ñàkk xam nu mu may def moo waral jotaay bii Mbakke yàlla na la sëñ Tuubaa dolli tawfeex di nuyu nag euh, ñu ko daan waxee rek jotaay bi bu ñu gisee fi ñu toog nii ci biir kër sëriñ Gana toobarey sëriñ bi danañ xam ne bis bi moo dellu seeti di bis bi muy sant xaadimal Moustapha nu ànd ak moom nu di sant sëriñ bi di ko sant le sëriñ bi jotaay bi ku ko xool xam ne njabootu sëñ Tuubaa ci lu wér ñoo fi ne taalibe sëñ Tuubaa ci wér yu bëgg sëñ Tuubaa ba yemale wuñ kook dara ñoo toog ci jotaay bi noo ngi woo taalibe sëñ Tuubaa yëpp nag waaye waa saam yi moom dañ koo war a waaj ak li ko wër ba ku fekk leen fi ma loolu mooy sama toogaay toog naa fi daaw daaw jég lépp waaye rëccuwuma ko ndax ki taxoon may def ba léegi nii mi ngi fi te du fi jóg muy seexul xadim ñu nu boole maag moom ren nag li ci dolli dañ koo tudde ñoo xam ne euh, dañuy ñun ñuy ñoom ci anam yëpp suñ maam ju baax ji sëriñ Mabé Guèye ñu xam ay njabootam dem fi ñoom muy nit ñu yiw ñu ko mat a ñu ko mat a jox nag mu yebal ay njabootam ñu séq ñoom ak bokk ak kóllëre goo xam ne kon bis bi dafay mel ni gën naa dollee doon suñ bis gën naa gën a sedd suñu xol ñu tuddaat ci suñ maam Serigne Aliou ñu demee ñoom noo xam ne ci bokk ci kóllëre kon diggante boobu yi bu ko ci dugalee dafay mel ne noonu dañ koo war a woote war ànd ak waa kër Serigne maa bii ngay jógee nga ci ñëw gunge leen war a dem sora ànd ak waa kër Serigne Aliou Touré gunge leen ñëw ci bis bi man nag li ma wax toujours ci télé laa koy wax. baa ma wax ko ci rajo mbaa ma wax ko ci samay jotaay ma ne suma làmbu fenn te ma ànd ak sama xel ba man maa def loo yu mel nii ci pexe lu lu jëm ci sëñ Tuubaa lu jëm ci sëñ Tuubaa nag boo ma ci woo dootuma xool la ngay def lan la ka koy woote kan na ka tax ñu koy woote mooy tax ma bëgg mu mel nam war a mel ñëwul na ngir sagal si sëñ Gànna sëñ Tuubaa sagal na ko noppi na ci loolu waaye kon nag nu ñëw nag bànneexoo sag boobu yi mooy li nu fi indi. ñoo wax ci turu. Serigne Ibrahima Touré xalifa Cheikh Aliou Touré la ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne bisub delloo njukkal la ak sant Serigne Touba Xaadim Rasul kenn ci taalibi Serigne tubaay yu ràññeeku yi di ko def muy Serigne Gana Messere Mokhtar mu baaxoo ko amal at mu jot ren mu war a doon le 14 février 2019 bi ñu nekk mu tuddee ko Cheikh Aliou Touré barikalla ak mbokkam ma Serigne Mabeye Guèye sëriñ Ibrahima wax ne mu ngi ciy woo njabootu Cheikh Aliou Touré gépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi waaye ñi nekk bitim réew ñu fàttaliku bis bi te xam ne seen bisa te ñaanal sëriñ Gana mu daje ci ngërëmul sëriñ Touba sëriñ Ibrahima daal nee na képp ko yaakaar Cheikh ture Touré barikàlla foo mën a nekk nanga waajal bis bi te jàppee ko sa bisu bopp. di yëkkati kàddu yi ci ndigalal sëriñ Mbacke Guèye moom sëriñ Mabé mi nga xam ne moo toogee jotaayu sëriñ Mabé. sëriñ Mbacke Gueye moom sëriñ Mabé mu ngi woote bis bi nga xam ne moom la sëriñ Gana Messere Maxtaar baaxoo de fii fi sàmm di ko def le 14 février 2019 di woo mbooleem bokki taalibe yi taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëriñ Mabé ñi ne ci biir réew mi ak ñi ne ci bitim réew ak mbooleem dayre yi nga xam ne ñoo seq bundu kër sëriñ Mabé bi sëriñ Mbacke Gueye nee na ñoom ñëpp mu ngi leen ciy woo di ñaan ñu waajal ko def ko seen biram bopp bis la bopp nag àgg na ci moom foo xam ne bis euh, sori na ci moom lool mbooleem koo xam ne leblante woon nga ak moom ciy bis sëriñ Mbacke Gueye nee na nga fekk si ko ci bis bi ànd kook moom Touba mbooleem daayira yi fi ne ak mbooleem daaray alxuraan yi fi nekk ci njiital sëriñ Moustapha Gueye ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di woo daaru xuddoos bu ko yàlla dogalee fa la ñuy defee départ bi dañu fay yendu ba ngoon bu ngoonee ñu départ fa jëm kër sëriñ Gana Mesere Maxtaar kon noo ngi woo bokki jullit yëpp noo ngi woo bokki taalibe yëpp noo ngi baalu àq bu baax. ñu yëkkati suñu kàddu ci turu suñu jëwriñ sëriñ Gana Mesere Maxtaar ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi doon xalif général de Mouride ñëw ci sëriñ Abbas mi borom daaru ba ci sëriñ Moustapha Absa ñëw ci alaaji maam Thierno mi xalifa sëriñ Cheikh Balla ñëw ci jëwriñam way juram sëriñam seriñ Modou Makhtar Mbacke moom sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Gana mooy yëgle bis bi mu baaxoo amal fii ci tubaa Sam ci jalu xeer di ci sant sëriñ Touba di ko ci delloo njukkal di ko yëgal mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp waaye nag di ko yëgal sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir di ko yëgal it sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khoudous di ko yëgal sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Soyibu di ko yëgal sëriñ Abib Mbacke moom sëriñ Fallou ak sëriñ Mamoun Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad di ko yëgal it sëriñ Cheikh Aliou Mbacke moom sëriñ Aliou Mbacke di ko yëgal it sëriñ Cheikh Tadd Mbacke di xalifa sëriñ Baara Khuraja di ko yëgal sëriñ Fallou Galas Kaltoom waaye di ko yëgal it sëriñ Ahmadul Badawiyu ak sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Abdoul Fatah moom Cheikh Ahmadul faadal di ko yëgal it sëriñ Mahmoudan Mbacke moom sëriñ Modou Awa Balla di ko yëgal sëriñ Cheikh Baara moom Cheikh Abdoul Ahad Baara di ko yëgal sëriñ Cheikh Coro Mbacke moom sëriñ Cheikh Coro di ko yëgal it sëriñ Sidi Ñang moom sëriñ Dëkk Awa Balla Ñang di ko yëgal sëriñ Sidi Naar Jenn waaye di ko yëgal sëriñ Moustapha Fall Mbar di ko yëgal sëriñ Cheikh Anta bu Daaru Salaam di ko yëgalit sëriñ Ibrahima Diop xalifa sëriñ Ibrahima Diop almasar ak sëriñ Modou Diouf général ñoom ñi nga xam ne ñoom la tudde woon bis bu daaw di ko yëgalit Abdoulahat Abdou Mbacke Ndaw maire bu Mbacke di ko yëgal Abdoulahat Ka maire bu Touba di ko yëgal sëriñ Abdoulahat Jaxate di ko yëgalit soxna Seynabou Thiam di ko yëgal Moustapha Cissé Lo di ko yëgalit sëriñ Cheikh Abdou Mbacke muy soxna Cheikh Abdou Bali di ko yëgalit sëriñ Cheikh Abdou Bara Doli ak Serigne Cheikh Bara Doli ak Serigne Modou Mbacke Bara Doli di ko yëgalit Aliou Thioune mi nga xam ne moo jiite Lamfal ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéeyu Lamfal yëpp mu ngi leen ko yëgal di ko yëgal it El Hadj Mbacke Faye mi nga xam ne moo nekk le président xalif général de Mouride Ndakaaru ak li ko wër di ko yëgal docteur Souna di ko yëgal it mboolem dayra yi aju ci kër Serigne di ko yëgal mboolem soppe yi di ko yëgal mboolem dayra yi aju ci kër Serigne Modou Makhtar Mbacke ci njiital El Hadj Sumbur si la bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwun ñenn euh, di wax ci turu sunu jëwrin Serigne Mbacke Diop le serviteur Touba Espagne mi nga xam ne moo nekk jiite groupe WhatsApp bi nga xam ne soppee Serigne Gana yi ñoo ci dajaloo nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi ñi woo bépp soppe boo xam ni yaa ngi dégg sunu kàddu ñu ngi lay woo ci bis bu tedd bi nga xam ni moom la sëñ di amal di ci sant Serigne Touba mu war a am la 14 février di dëppoo ak bis bu alxames incha allahu rabbi euh, Serigne Mbacke Diop nee na mi ngi ciy woo kilifa gi nga xam ne mooy kilifa euh, béréb bi nga xam ne mooy groupe whatsapp bi muy sëñ Xaarim Mbacke góor yàlla yi ne ci euh, groupe whatsapp bi di ci woo soxna Jaara Mbacke mi nga xam ni moom moo jiite soxna yu tedd yi ne ci groupe whatsapp bi ñu ngi ciy woo ñëpp sëñ Mbacke Diop daal nee na képp koo xam ne sëñ Gana mos na laa bégal bu doonte ni benn minute ak mi ngi lay woo ci bis bi nga xam ni moom lay delloo njukkal ak sant Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloom ku sëñ Gana Messere bokkal direct ñu ngi lay woo ci màggal gi ñu commencé Touba ci Maxa ba jàll yeew ñaaxeen Mirina Assa ñëpp ñu ngi leen woo ak waa diaspora bi ñu ngi leen woo Italie France Espagne ñëpp ak ñu nekk Canada waa Bruxelles yi maa ngi leen woo. woote bi nag ni ko bokk yëpp waxee dañ ciy jiital daara yi alxuraan yi nga xam ni ñoo amee njàngum alxuraan bi di ci teg duruskati xaside yi nga xam ni at mu jot ñooy taaral bis bi ak mboolem jànkati xaside yi nga xam ni danoo dañoo woo di yëkkati di ci woo soppe yi di ci woo wëllëre yi di ci woo am di jàmm yi jiital ci woote boobu nag kuréelu Serigne Gana Messere bi nga xam ni moo sos bis bi di ko dajut Bàmba dajoo ñoo ngi ci woo ñëpp góor ak jigéen mag ndaw bàyyiwun kenn ku jige ci àll ba foo mën a jaar rek mbedd mi bàyyi ci hôpital Jannatul Mahwa moo ñëw ci kër gi bu dee ku bàyyi koo Madiyana wet gi sareet yi nga xam ne ñoo jëm saam moo ñëw ci kër gi nuy euh, def nag incha allah ren buñ ko fekkee jàmm cérémonie bi ci kàttanu yàlla tàkkusaan lañ ko bëgg amal bu nu cérémonie ba noppi def bernde yi gannaaw timis ñu doog a tàmbali njàngum xasida mi jëm bët set nuy sàkku nag mboolem ku ci teew tase ci ak tawféex Sëriñ Tuubaa di sant bu baax a baax ci bis bi nga xamee ni jëwriñu Seexul Xaddiim ci sama waxin liggéeykatu Seexul Xaddiim jàmbaari Seexul Xaddiim di Sëriñ Ganna Messere mi nga xamee ni yàlla moo neex Sëriñ Tuubaa tànn ko melal ko nii mu mel nii mm, ma jàpp ni man ma leeral ci tuuti séqu ma moom dara du sama xarit am ma ci moom benn lenn sëñ Bamba rek laa xool ci moom keneen kuy sëñ bi itam mbaa ku mel nii moom ci sëñ bi ma doxee yow jëloon ci sëñ bi sëñ bi itam def ko nii ma ko def ngir pësteef gi mu am ak liggéeyal sëriñ Tuubaa gi mu koy liggéeyal daanaka ko wax ci yeneen jotaay yu mel nii ne ko bis boo gestoo rek jàpp ne lenn nga rek ñàkk nga sëriñ Tuubaa lim yore. xale du ko yore di ko pasar pasare ba xale bu wér lay doon bu am ful ak fayda xam fi mu teg tànk mooy lan bul gestu ci lenn xam ne Sëñ Tuubaa da ngay liggéeyal waaye na nga teg ci yoon ndax waa nahaa sa siraati mustaqiman fattabi'uhu waaye boo juumee ba ti baaxu benn ci subul yi rek da nga daal di am jafe-jafe kon di la sant bu baax a baax ci bi la yàlla dimbalee nga wut bis te bis mënut a ñàkk ci nit bis nag kenn du ko xeebal kenn soxla itam ba moo bis bii nga duppee Cheikhul Khadim bis mënu ko gën a màgg bis bis bis mënu ko gën a rëy amuñu lenn lu Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim rek la suba la démb la lépp Cheikhul Khadim suñ lépp Cheikhul Khadim lay doon ni nga xamee ni noonu la yàlla wax ne laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula waaye ñun tim cay bañ amee Cheikhul Khadim booba lañ am lépp kon nag sëñ Gana na góor góor bu baax a baax man nag damaa ñëw teewal sama jëmm waa kër Cheikh Mouhalim Mbacké gépp mooy kër Cheikh Mouhamadou Lamine te génn kër ci kër Cheikhul Khadim goo xam boo ko tuddee tudd nga mboole waa ñëpp ñëpp lañ yóbbaale ñëpp ci biir taxawaay bi ma am yéene bii pas-pas la waa kër Sëñ Tuubaa yëpp am ndax ñëpp la jàpp ñëpp la bëgg ñëpp la sopp donte ñëpp la ëpp xam am nga sa waaye sa la sa doxin sa taxawaay la ba na Sëñ Tuubaa eh, eh, eh, daa dina yebal ñëpp ci ñu soutenir la ànd ak yow kon nag santal lu baax a baax liggéey bu rëy bii itam yaa ngi koy def di ci feeñal mag ñii magi waa Sëñ Tuubaa yi am na ñoo xamee ni xam nañ leen waaye buñ leen gënoon a xam mu gën a baax ku mel ni sëriñ Mabéye mii nga jël nii jàngat ak dundam ci bis ba sëñ Aliou Touré jàngat euh, euh, euh, dundam ci bis ba day yokk pësteef am murit ndax nit ku lum xam du ko jaawale maa du ko yemale mukk lum xamut kon lu am solo la ci bis bii nga xamee ni tànnal nga ko sa Cheikhul Khadim waaye nga tànn ci ci jëwri yi nga xamee ni dañoo jaayoon seen lépp ay gor lañu woon ay borom pëstëf lañu woon ay garmi lañu woon waaye Sëñ Tuubaa rek jaaxal leen ñu jël seen lépp jox Cheikhul Khadim kon nag ñooñu fàttaliku leen lu am solo la ñoo ngi lay ñaanal nag yow nga yegg ak jàmm ci barke Cheikh Mouhamadou Mbacké min sañ a ñaane waaye di ñaanal sa sëriñ Sëñ Ahmadul Muxtar Mbacké sunu wayjur sunu xarit sunu lépp ñoo ngi koy ñaanal suñu borom gën koo tëbb barke gën ko jàppale may ko fan gudd ak wér fay dimbali mboolem wàkk Sëñ Tuubaa yëpp di ñaanaleen mboolem taalibe yëpp mbokk yi kon bis bi le 14 lay doon le 14 février fii ci saamuk sëriñ Bara Khourédia moom moom euh, Serigne Cheikh Bara ngi nii toog moom Serigne Bara Khourédia moom Mame Mor Diarra borom saam bis bi nag ñu di ci woo mboolem kilifa administration bi tàmbale ko ci le préfet de Mbacké le sous di ci woo mbooleem homme politicien yi yëpp parti au pouvoir opposition ñi ngi leen ci woo di ci woo mboolem daayira yi mboolem wëllëre yi góor ak jigéen mag ak ndaw programme bi bu ñu xëyee jàng alxuraanu karim bëccëg bi ñu amal bernde tàkkusaan la ñuy amal cérémonie bi ginnaaw timis bu ñu xewloo ba noppi ñu fanaane njàngum xasida mi sëriñ Gana Messere mi ngi ciy woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.